dañ ci waxtaane weeru koor ak at yi nga xam ne aju na ci di sas fi ñu taxawoon démb rek doon leeral mbir yi nga xam ne dafay yàq koor ñu waxoon ne am na yoo xam ne day waral kafaara am na yoo xam ne lu waral kafaara mooy fay rek fay bis wala kem li nga xam ne moom la nit ki euh, dokk di wax rek ne di sukkandiku maanaam ci mazhabu imam malik ngir ne mooy mazhab bi nga xam ne ci lañu jaamoo borom bi tabaraka wa taala te mu dëppoo ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak mboolem mazahib yëpp rek mel tey ji moo war a nekk numéro 18 mooy jotaay fukkeel bi ak juróom-ñett bokk na ci mbir yooyu noonu li ñu tuddee ak taamul ixraajil masi mooy tayu génne euh, masi yu ku ne xam na ne ki nga xam ne dafay fox ak xëy jigéen wala sax muy xalaat xalaat yi bànneex yoo xam ne dafay aadoo maanaam jigéen génne maanaam euh, maanaam mathiyu ci xalaat maanaam bànneex su boobaa dañuy jàpp ne kooram dafay yàqu jëmmi mathiyu nag dañu wax ne am na ay ay martaba ay maraaxil am na ci maanaam génn goo xam ne bu fekkee dafa génnee maanaam ci côté boobu noonu dañuy jàpp ne maanaam kooram du yàqu mooy su fekkee dafa génn ci anamuk goo xam ne amul maanaam bànneex comme lu mel ne eh, jamonoy sedd la masalan mu génn wala sax mana nit ki dafa feebar xëy na ba mu taqoo ak moom ñaar yi ëpp day ñëwal da koy ñëwal eh, wala sax aji woor ji xool na waaye jubluut maanaam bànneex mu daadi di génne masiyu ci lu gaaw maanaam ci lu muy euh, sax maanaam ci xool bi suba anam gi dañuy wax ne maanaam kooram du yàqu dañuy wax ne sax donte maanaam sàkkaraam ci waxtu dafa jug wala ay siddam su boobaa dañuy wax ne kooram du yàqu loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ci mashabu imam Malik bokk na ci mbir yooyu yi nga xam ne dafay yàq koor ba léegi mooy wusulu shay ilal jaw mooy àggu dara ci mbàq doomu aadama wala ci biiru nit maanaam mbir mi nga xam ne dafa àgg ba ci biiru nit ki mooy bërëb bi nga xam mooy bërëbu ñam wi dañuy wax ne kooram dafay yàq mooy su fekkoon waaw moo xam ci gémmiñ gi la bàyyeekoo la jaare laa bëgg a wax wala sax ci suuf la jaare lu mel ne maanaam ci buntub ginnaaw doomu aadama kon lu mel ne euh, li ñuy tuddee kii anal de anal d'exception yaakaar na anal d'exception ak euh, suppositoire euh, d'insection yi ay xeeti kii la yoo xam ne ñi nga xam ne jëngi ci wàllu faj xam nañ ko lu ñuy jël di ko def ci maanaam buntub ginnaaw doomu aadama la yii nii dañuy wax ne su fekkee maanaam dafa nekk loo xam ne dafa ànd ak lu ndoxu lu ndoxu mel ni ndox mana ndox walla sax mana ak euh, saafara la lu mel ni ay garab su boobaa dañuy jàpp ne su fekkee àgg na ci biiram ba su boobaa dañuy jàpp ne kooram euh, dafay yàqu wala sax mu nekk loo xam ne nekkul lu ndox waaye lu dëgër la mooy lu wow parce que mel ne aw ñam euh, maadaama daal àgg na ci biiru doomu aadama su fekkee maanaam ci anamu tayeef la amee bu fekkee ci anamu tayeef la amee su koo xam ne xëy na dafay amul benn ngant boo xam ne moo ko waral maanaam faj wut wala yi mel noonu euh, faj wut su waree jàpp ne ko yàqu na waaye day war ci moom mu kafaara kon déggin mooy su fekkoon maanaam ci ak faj ak faju la am maanaam daal nekkut ci ak tayeef la am su kon fay rek lay waaye du kafaara kon su fekkee ci ak tayeef la amee ci ak tayeef la amee maanaam amul benn ngànt bu ko waral su dañuy war ci waaja moo fay ba noppi boole ko ak kafaara su fekkee nag ci ngànt la amee comme ni nga ko waxoon na su day fay rek waaye du kafaara tey du ci am benn bàkkaar naka non tamit ku duggal ci ab biram dara lo xamne dafa masalan lu lu deugar la moy lu wow rek lu melni ñam loo xam ne daal mënee ci cee suur waaw nit bu ko dal du sentir ne moom sourna di yëg ne maanaam suur lu melni xox wala sax aw xox wala melni ab dërëm sax masalan wala melni ay xolit ba mu jàll ba àgg maanaam ci biiram suba dañu wax ne day war ci moom euh, mu fay dañuy wax ne dafay kafaar loolu bu fekkee moo ko tey ngir lan ngir dañuy wax ne dafay doyalal maanaam jëmmi maanaam koor waaw ah, xot ci maanaam olome koor am na ñu wax ne du war ci moom mu kafaara donte moo ko tey ndax dañuy wax ne loolu ci boppam nekkut loo xam ne nit ki da ciy maanaam suure nekkul loo xam ne nit ki da ciy suure su fekkee ne dañuy wax ne maanaam tëyu ko ci boppam su boobaa dañ naan dara du ko ca war loolu day boo demee ci al muwaafiq dal al qalil war nga dem ci xaasiyatu dusuur yi dañ ci fekk ay détails yu bari yoo xam ne waroom xam-xam yi wax nañ ko ci waaye rek ngir gàttal rek bu jariñ ci xuusin bu baax a baax kon loolu daal mooy li nga xam ne jàpp nañ ko ci masala boobu noonu mu ngi cee wax te toxalee ko maanaam ci téere yi bokk na ci ba léegi yi nga xam ne day yàq xormay wusul ma ilal alq mooy agguk loo xam ne masalan dafay sotteeku lu mel na ndox ci maanaam ak buli mooy fi nga xam ne mooy nit ki lekkee ba na fi muy jaaree ba àgg ca mbàq wala sax loo xam ne dafa lu dëgër mooy loo xam ne daal lu mel ne aw ñam la dañuy wax ne su fekkee dafa àgg ci boli gi su boobaa wax ne kooram yàqu na dañuy wax ne kooram euh, yàqu na am na ñu wax ne nag kooram du yàqu su fekkee maanaam loolu lu nekkul lu ndoxu mooy loo xam ne daal lu lu wow la xëy na masalan ci misaal ci lekk dañuy wax ne su boobaa kooram du yàqu su fekkee àggul ca mbàq ka kon daal déggin mooy su fekkee ndox la ñoom dañoo xam ne yàq koor euh, directement mooy su fekkee àgg na ci bul gi ndax dañuy jàpp na moom boobaa àgg na ci mbaax bi waaye na su fekkee nekkul loo xamante ni ndox la mooy loo xam ne masalan lu dëgër la mooy lu wow su fekkee dafa àgg ci mbaax ci ci buli gi su boobaa dañ naan kooram yàquut lu dul ne àgg na ci mbaax loolu de ay wax la yoo xam ne waram xam yi ñoo ko wax wuteeg maanaam li nga xam ne moom lañ njëkkoon li nga xam ne euh, moom lañ njëkkoon tudd moo xam loolu mi ngi jaare ci bakkan bi wala ci bët bi euh, wala ci bët yi bakkan yi la jaare wala ci bët yi wala ci nopp yi fu mu fi mën a jaar rek dañ koy jàppe mu bokk ci bunt yi nga xam ne maanaam euh, su ci jaaree dañu jàpp ne war naa mën a àgg ci mbàq kem ni nga xam ne noonu lay jaare ci gémmiñ gi noonu yént bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tere ki nga xam ne dafay jàpp mu bañ a maanaam galaxndiku galaxndiku gu ëpp mooy su fekkee ma a dafa ma saraxndiku gu ëpp bu fekkee dafa nekk ci euh, weer koor su fekkee dafa nekk ci weeru koor loolu nag li tax ñu ke bañ mooy dañuy bañ euh, ndox ma di àgg maanaam ci biir ba loolu xadis la boo xam ne Abu Dawud génne na ko yonent bi di tere mana euh, nit ki di saraxndiku saraxndiku goo xam ne mën naa dem ba àgg ci biiram bi masalan mooy su fekkee ci maanaam fekkee nit ki dafa woor laa bëgg wax su fekkee dafa waxoon ne bu ngeen di saraxndiku ne ngeen matale ne ngeen ko jotale lu dul ne maanaa da ngaa woor kon liñ jublu foofu noonu lu dul da ngaa woor mooy ki nga xamante ni dafa woor su ko defee dara mën naa jàll ba àgg ci biir bi te su boobaa dafa yàq kooram kon yoy ay mbir la yo xamne da fay yak koor kon ñi ngi taxaw ba suba ja incha allahu taala ay yenen mbir subhanaka allahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin